ma fas yéene bis ni ki ëllëg dimanche incha rabbi door tournée nationale bi nga xam ne annoncé woon nañ ko may wax sénégalais yi ni tournée nationale bi amul fuy gox fuy commune wala département te nekk ci biir Sénégal fu ñu fas yéenewul teg suñu tànk diggante bis ni ki ëllëg ba mois de juillet 2000